docteur euh, Seydina Oumar Seye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. nga nekk économiste sa xam-xam màcc ci wàllum euh, koom-koom d'abord ma lay laaj euh, naka nga gisee partenaires financier yu Sénégal yi recommandation yi nga xam ne def nañ ko di ñaax état wu Sénégal def kem kàttanam ngir rek stabilité politique daal di am ci réew mi ban lecture nga def ci recommandation yooyu la. waaw recommandation yooyu moom loolu en fait euh, képp ku rationnel la ci ànd parce que tey jii euh, stabilité ak paix ñoom boo xoolee partenaires techniques et financiers yi bu ñuy wax ab langage euh, diplomatique la ñuy utiliser dan lay junj parce que am na yoo xamante ne ñoom duñ ci mën a dund mais liñ lay bëgg a wax rek mooy lii su continuer économie bi danañ dem ba foo xamante ni dana jur yeneen problème yoo xamante ni c'est c'est incalculable en termes de tensions sociaux tout simplement socio-économique moo tax ñoom ñii artu di ñu wax ni daal nañu fexe ba am benn climat bu estable bu favorable au développement bu favorable à des activités yoo xamante ne dina mën a jur koom li ñuy wax ñu xamante ne dañ koy natt ci taux de croissance parce que boo xoolee ci jamono fan yee ñu génn nga xamante ni ak les perturbations politiques yi xewoon ci dëkk bi ñun ñëpp ko constaté ndoo soxlawul nekk économiste wala partenaire technique pour gis ni lii njeexital yi ni am baaxul ci suñu économie parce que lépp a Mhm. loolu lu ñuy lu ñuy lu ànd ak ci ñoom la fexe de telle sorte que xaw ma bonne formule la ñuy def mais la paix sans laquelle aucune économie n'est viable parce que bu crise amee activité léppay nekk à l'arrêt à panne mais la muy jur derrière daanaka boo moytul finalement kenn du talati li ñuy xëccoo donc loolu euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk quelles que soient les obédiences politiques mais mën nañ ci xool nan la ñuy trouver les voies et moyens pour ne pas euh, afin de ne pas sombrer dans les émotions ni dans les pulsions mais surtout de savoir que le Sénégal ci prime et loolu la partenaire technique yi wax c'est-à-dire nañu fexe ba xaw ma nu mu koy defee ñun li ñu dugg ci nu mu koy defe parce que ñi daal am na ñeneen yaakaar naa ñu war xarañ ci loolu mais daal nañu fexe ba maintenir tout simplement cette paix sociale cette stabilité bi nga xamante ne moom lañ xamee woon Sénégal mm. pour continuer di capter investissement direct étranger yi économie di dox tourisme di dox ñoo xamante ni tey jii monde bi ñu nekk monde crise la ba yenn yi nga xamante ni tey jii ñu ngi koy dëkkandiko tudde ko ci résilience di continuer di mën a nekk sinon on sera au bord la rupture hmm. euh, économique euh, partenaire yooyu le docteur lan la ñu daal di représenter exactement surtout ci koom-koomu réew mi. ah ci lu bari ci lu bari parce que tey jii ay partenaires yoo xamante ne dañ lay accompagner boo soxlaa yenn xaalis wala war nga def tey jii ay leb li ñuy wax l'endettement tey loolu dama ko xaw a sax ba fàtte ji français bi mais endettement bi tey jii Sénégal lu ci bari tey ñun dañu nekk dëkk yoo xamante ne amuñu yenn comme yu diis yoo xam ne bu dara xewee loo xam ne prévoir ko woon suñu budget yu mel ni yenn sorte exogène fan la ñuy jëlee xaalis pour def compense def compensé compensé yooyu wala fatt bunt yooyu. Mm-hmm. léegi nag partenaires techniques yooyu ñoo ñuy jàppale à chaque fois bu problème wala ñu soxla xaalis ailleurs Sénégal dañuy état de droit na ñoom ñu accompagne ñu jàppale yu jox ñu xaalis boo xamante ni tey jii bu teew la bu mënut a amal suñu bopp ñu def liñ bëgg a def jëm bi jamono ñu delloo mais ñooñu pour ñu jox la xaalis yooyu dafa am ay critères. Mhm. yoo xamante ni muy transparence ak yeneen yooyu. Mhm. kon tey jii mën nañu wax ni euh, groupe boobu di G50 dañu am influence bu rëy rëy ci doxalinu politique gu état wu Sénégal maanaam état wu Sénégal ni muy yoree réew mi ci wàllum bonne gouvernance et tout que ñoom dañ si am influence. waaw mais du ma ni influence sax mais de manière indirecte parce que ci dëkk yëpp lañ ko am parce que tey àdduna moo tënke noonu c'est pas que tey duñ ko gisee ci ñooñu ñoo ñuy digtal xool leen fii xool leen fee. mais tey jii ñooñu tey jii seeni position wala li ñuy wax dañ ci bàyyi xel ndax mënoo ñëw tey ci koo xamante ni kat boo soxlaa wala yenn yi nga xamante ni tëne la tout de suite ñu jox la mu ne la ah c'est ce que lii du gën nga ni doo ci bàyyi xel c'est pas parce que mu ne la lii du gën doo ci bàyyi xel que moom lim la wax wala fi mu bëgg nga xool noonu ngay doxale sa économie ça veut pas dire cela mais toujours est-il que parfois di nga xool ñoom ci yi wax yan ñoo ci yanu maanaa yan lan mën a def yan moo baax suñu comme ñu jëmbal loolu ci ëpp yu bari da ngay gis ni boo duggul ci ay égo di nga xam ne ci yu bari à fin économique rek laa yam dañu yam ci économie kase di nga gis ni toujours ay ngëneel lay nekk ci suñu économie yu ci ëpp maintenant am na ñeneen yoo xamante ni mën nañ fi demal suñu yëfi bopp mooy surtout yi nga xamante ni à dimension endogène mais toujours est-il que partenaire technique yooyu ngay wax G50 ak yeneen du ci Sénégal spécifiquement mais c'est un peu partout à travers le monde am na ay influence sur les économies du monde parce que àdduna moo tëndee léegi Euh, d' accord tey jii ñoom euh, comme par exemple docteur ñu jékki-jékki retiré wu euh, lan mooy impact bi lan lay def ci koom-koomu réew mi. ah mais ci lu bari bu boobaa moom dañuy xalaat delluwaat ci à des situations ci ci yenn situation yu bari di nga mën a dem yoo xam ne ni moom da jéem a demal sa bopp wala ko tourner ci yeneen yoo xamante ni tey jii ni ñu xamee sa économie wala ni ñuy ñëwee pour jàppalee la dootul amani. et bu ñun suñu économie yi nga xamante ni on est tout le temps sous perfusion financière pour ñu dem dana metti lool mais bon heureusement que pour nous euh, sous peu si on arrive à serrer la ceinture et à maintenir le cap bon avec les prochaines ressources pétrolières et gazières bu ko doxalee ni mu war a doxee danañ dem ba tey ji teg rigueur boo xamante ni ñun ñooy dimbali waate mais tey ji les partenaires techniques et Euh, financier assistance bi nga xamante ni moom la jàpp ni parfois lan ñuy nekkale di man di teggi tuuti di teg sa mhm. ñu mm. gis ba léegi ci recommandation yi nga xam ne ñoom ñu ngi ko doon def ñu ngi demander état wu Sénégal publier rapport annuel yu Cour des comptes 2018 2019 2020 2021 ak tamit loi finance 2020 2021 est-ce que loolu lu lu normal la le fait que ñuy laaj rapport yi waaw mais tamit rapport yooyu man pour man waruñu xaar sax ñoom ñu koy laaj ñu war koo def parce que tey jii ñi nga xamante ne ñooy saytu loolu dañu leen bind pour ñuy saytu leen rek ko tax a jóg pour transparence xaalis bi wala li nga xamante ni moom lañ tënk tabax suñu économie di jaar yoon te loolu bu jaaree yoon production dana wàññeeku te danañ ko am njeexital ci ay point de croissance donc loolu c'est pas que ñee dañ ñoo wax lool rek dañ koy def duñ ko def wala waruñu koo wax du ñoom ñoo ñu ko war a wax njeexital gi mooy. ay rapport yooyu noonu yëpp danoo war a fexe di ko génne ñuy xool ndax te jii li ñu digle woon li ñu tënke woon ci xaalis bi nan la waroon demee est-ce que lépp jaar na yoon bu amee jubbanti ñu ab def ci ak jubbanti su amee rëq-rëq ñu xool loolu nan nañuy fexe ba du amate bu laajee sanction ñu sanctionné parce que loolu tamit il faut mu nekk benn culture mhm. rapport yi li ko tax a jóg c'est pas pour ay soir mais dañ ko war a lu mu metti metti moo xam boor bi nga fare wala sa ay nit tamit mais toujours loolu dafa war a nekk benn loo xamante ni lu naturel lay nekk amul ku ci tàggu buñ ko defee ba app bi jot képp ku ci war a jox public analyser ko xool da nga ko war a jot donc loolu ñooñu buñ ko waxee dañ ko war a wax mais c'est pas parce que ñoom ñoo ko wax ñu ko wax mais luy jaar yoon la ay rapport muy cour de comptes yi mu ci mënti nekk muy nekk li nga xamante ni moo tax a jóg ñu koy publier pour saytu ci transparence di am parce que ñoom ñooñu ngay wax noonu tey jii ci bari boo demee di leen solliciter yooyu day nekk ci critère en contrepartie pour ñu jox la seen Hmm. Euh, d'accord beneen tamit euh, docteur ñu laaj la si inflation bi nga xam ne fi ñu toll nii sonal na lool sénégalais yi euh, lépp a yokk euh, yokk daanaka les les gens souffrent inflation boobu lan moo ko waral exactement. waaw man moom du ko du ko donte am na ci ñu bëri xam nga bu ñuy expliquer inflation bi dañuy démarrer ni la la crise di amoon sanitaire après ñëw ni la li ko gën a yokk moom mooy actuellement conflit bi am au niveau Russie Ukraine c'est vrai que loolu naam ay incidence la ci li ñuy tuddee inflation importée mais fan yi li ñu dundoon nga xamante ni affaire yi amoon na mais tar ñim taroon bi ñuy waaj dugg ci koor yi mais da ngay gis ni ñu ci bàyyi boo jëlee exemple sucre bi am na ñu jàpp ni pour ne pas di tooñ wala di def ci ay affirmation gratuite am na ñu jàpp ni c'était une inflation boo xamante ni boog manque bi prix bi c'est provoqué c'est provoqué par certains acteurs yoo xamante ni wala opérateurs yoo xamante ni on va tout faire pour que le produit soit rare après une semaine plus tard ñu génne ko pour yokk njëg yi. Mm-hmm. mais loolu man lu ma koy jiñ rek mooy tey jii état bi war na def de telle sorte que défaillance yi nga xamante ni wala manquement yi compagnie sucrière sénégalaise 1970 ba tey waroon na mën a am ay unité de production suffisante pour mën a fexe marché bi la demande Sénégal tey jii waxuma la ñun mais sous région mën na leen a jaay mais loolu amuñu ko léegi nag lu ci ëpp ñun suñu état yi dañuy def li gën a yomb mooy tey juste par absence de rigueur yi soo mu jaral leen ko teg ay structure wala entité unité de production yu am solo def ci rigueur bi man dañuy délégué loolu à des opérateurs économiques jox leen ko daanaka sax à la yaa leen financé jox leen l' argent public pour un débit après nga xool hmm. mais loolu boo ko organisé wu def ci rigueur day nekk loo xam ne dañuy salut public la état kuy moom téyul ko boppam muy lépp li nga xamante ni des denrées wala consommation stratégique yi état du ko délégué da am loo xamante ni bu dee quatre vingt dix pour cent moom moo ko yoral boppam lépp luy compense keneen doon ko indi moi je pense ñu dem ci yooyu parce que buñ ko deful monde bi ñu jógee crise yi ñu wax plus loin Covid beeg yeneen a yeneen et là où ñun ñaa ngi wax à tout moment guerre mondiale mën na déclencher perte escalade de la violence bi il faut que am yoo xamante ni ñu fexe tey jii kat di ko sécuriser ba bu yenn choc amee à l' international comme crise bi Covid bi amoon nga xamante ni kenn demul kenn dikkul mu xaw a oyof ci population yi nga xam ne leen man di soulager ci yenn yoo xam dañuy côté accompagnement côté résilience bi ñuy wax chaque fois. Euh, léegi lan moo waral état bi jël na ay mesures mais mesures yooyu euh, amul njëriñ daal par rapport ak inflation bi lan moo ko waral. waaw ba parce que moom laa doon expliquer sànq amul mm-hmm. benn même ci élément yi un opérateur économique bi def xaalisam ñëw dem lay mm-hmm. wax man je mm-hmm. vais pas opérer à perte dama ci def lii y a les perturbations des chaînes à travers le monde guerre bi tel tel tel donc du ma jëndee cent di jaayee quatre-vingt-dix loolu lan lay teg te dina xaw a yanu maanaa mais dafa am loo xamante ne ñooñu nañu def ba dem état mi nga xamante ne utul bénéfice mooy am dañu le service public l'utilité bi ko tax a jóg moo waroon di defal boppam moo tax parfois tey mesures yi yëpp ay annonce lay nekk mais accompagnement bi jeexital ci terrain bi ils ne sont pas effectifs et ça pourrait jamais être effectif également. d'accord euh, dernière question docteur kon kañ la Sénégalais yi mën a espérer souffler waat tuuti parce que sonn nañu est-ce que mën na nekk dans quelques mois wala dina yàgg. mais boo xoolee ci njëlbeen gi loolu la partenaires yi wax bu ñu xoolee cadrage macroéconomique xool fi jëm à chaque séquence wala trimestre dina xam économie à travers le monde parce que ñoom bu ñu lay defal analyse dañuy xool l'environnement interne ak externe mais par rapport à l'environnement externe ak yi ngay gis yëpp ci àdduna yi nekk mais tey jii dafa am loo xamante ne li nga xam ne ni moo ko moomal suñu bopp mooy tey jii malgré tout amoon nañ benn élément muy suñu denrée rare muy la stabilité la paix loolu nag bu commencé sooxe ñoom loolu la ñu bëgg a wax Sénégalais yi duñ gis la le bout du tunnel mais tey jii li ñu njëkk a def faire de telle sorte que le climat social politique fexe ba loolu dal mu xam ne dinañ tal au moins lii meek ci adduna ñu xool problème yi ndaw yi nan lañ koy dëkkandikoo état bi maintenir le soutien conjoncturel pour soulager les populations parce que ñun suñu économie nii de culturellement on a des événements yoo xam ne chaque fois ñi dañuy soxla yoo xamante ni xaalis day génn wala tel ñu ngi dëgmal koor gi dans deux mois tabaski donc moi je vois pas tout de suite bu fekkee dëkk bi amul jàmm nan la ci Sénégal yi génne day gën di metti parce que ñee en filigrane bëgguñu dugg ci considération politique yooyu mais langage diplomatique boobu lan lay jaarale tout simplement bon ci li ma xalaat man yaakaar na noonu laa ko gën a analyser en en un mot mooy sortie partenaire technique et financiers yi d'accord docteur Seydina Oumar Seye maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi Mm. merci merci bien c'est moi. Euh, may fàttali ni euh, voilà docteur la xam-xama màcc ci wàllum koom-koom ñu koy remercier bu baax a baax remercier bu baax a bax